Argentine TV ba léegi ñu ngi fii si Makkatal Mukarrama ñu ngi nag ci yoon ngir daal di dem def tawaafu aj waaye itam dox safa ak marwa ginnaaw bi nga xamee ni jóge nañu ci def euh, sànni jamra suñ ami dun jàll na jàll la naaw waaw maa lay jaare bu baax ngeen nekk ñi nga xam ne day na bokk ci ñuy def mm-hmm. organisation bu aj aj bi mm-hmm. mën ngeen ñu wax seen ay dëj yi toll nii ak fi kanam alhamdulilah dañuy sant yàlla bu baax ndax ah, li si gënoon ëpp doole jàll na comme ni ko yonent bi waxee alxaju arafa yàlla def na ñun ñëpp ujaa yëpp teew nañu démb arafa ñu naan yàlla na yàlla nangul ñu ko li ñu desee comme ni nga ko waxee mooy tawaaful ifaada ñu ko jógee ñi war a def ah, say safa bar safa ak marwa ñu def ko suñu paree delluwaat mun na def ñaari fan si ñu ko mën ñu yàkkamti si ñu ko kii tamit mën euh, ñu yàkkamtiwul ñu def ñetti fan ñetti fanu jamra loolu weesoo ñu dem waajal ñibbi bi incha allah yàlla na yàlla yombalal ñu li des waaw ñu yàlla bu baax alhamdulilah. na yàlla organisation bi ñu gën a am solo année bu ne yu bari di wàññeeku ñu indi yenn ñan hmm. yow loo yore ci ñooñu ak itam euh, waaw alhamdulilah ñun dañu tàggat si aj ah man comme ni ko waxee man maay Hamidou Diallo yor munazimu regroupement GIE Phoenix regroupement Phoenix Kaolack même depuis trois ans wala quatre ans bu Phoenix maa ko yoroon depuis 2017 depuis bu ñu créé regroupement bi ba léegi tamit ñu renouveler confiance ñoo xam liggéey bi yàlla di ñu dimbali di ñu defal ndam. ndax alhamdulilah mosuñu bàyyee ujaaj enrat te saa bu ñëwee tamit dinañ def suñu kéem kàttan ba ujaaj bi li mu war a taxawee lépp si ko wàllu diine mu taxawee ko ak ba ba muy ñibbi mu ñibbi ak xel bu dal loolu alhamdulilah ñu si siy góorgóorlu bu baax ndax expérience bi nga xam ne suñu Boubacar njaay yàlla na ko yàlla yërëm moo ñu si tàggat ñu yónne tey dañ leen di si ñun la ñu jaar ndax 2012 boobu regroupement amul noonu mais ñun ñoo bootoon Capio ñun ñoo bootoon ah, Firmament ñun ñoo bootoon sarifa yu bëri yi ngay dégg fii kon naa ah, alhamdulilah teel nañoo am expérience boobu moo tax alhamdulilah ah, ñun daal ñu ngi ñaan yàlla yombal comme li nga wax tamit évolution bi nga am si aj bi ñu ngi koy sóoraale di ko waajal ndax naar ñu xam ko aj bi dañ ko bëgg moderniser ñu ngi jëm si tourisme religieux ndax boo rombee mën naa gis nu mu bindoo léegi ñu ngi commencé tabax ay immeuble yoo xam ne ay dëkkuwaay lay nekk mhm. te ñun suñu xayma yooyu ñu nekk incha allah dañ koy gën a améliorer la ñu wax si hauteur ak si espace mhm. euh, arafa gis nga ko mhm. ñun ay xayma lañ daan dëkk bu njëkk waaye ren gis nga fi ñu nekk daan climatisé lañ dëkk waaw euh, mooy wane ne affaire baa nga avancé ñun nag ñu war a ànd ak ñoom tamit avancé ndax comme si ñoom lañu ñu tënk jafe-jafe yi nag du ñàkk ndax gis nga reen xawoon nañu am tuuti jafe-jafe si kaar yi tar tardement yeeg yooyu mais mbir yàlla moo demee noonu toujours dina am natt boo xam ne dina ko sërëxal si biir pour xëy na dolli yool beeg wala gën a defaraat xol yi incha allah. maa ngi koy wax ak sa benn compagnon ci côté itam wax dëgg yàlla si avion yi gis yeneen compagnie ay tardement ay manifestation am ci ba sax daaj bi ñu waroon a ñëw fii ci màkk dafa dafa dafa mujjee changé yéen nag macha allah alhamdulilah avec euh, compagnie gis nga comme li ma doon wax liggéey bu ne expérience de si baax ndax ñun euh, ci structure yëpp muy Freinage ak Air Sénégal malgré suñu xol ak suñu yéene si Air Sénégal la nekkoon waaye nag euh, dañu yor ay engagement gisee ne wax dëgg yàlla Air Sénégal li ñu bëgg mënuñu ko kii woon dañu dem négocier directement ak euh, waa Flynas on avait prévu même de prendre un vol chargé vol boo xam ne spécial pour ñun ndax suñu regroupement bi ñu ngi toll si 427 ñun rek daanaka feesal nañu avion si si foofu la ñu jaaree daal ba am ndimbal ñu amoon ñu date boo xam ne moo nekk date boo xam ne moom la ñu réservé woon suñu hôtel Médine mu nekk date boo xam ne aussi groupe bi yëpp seen nañ ànd ñëw kii mhm. santaat yàlla bu baax di si gërëm tamit waa Fly Night seen kilifa yi fa nekk si ndimbal bi nga xam ne jàppale nañ ñu ko ok projet bu bees bi yaa seen première at mhm. ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, am ngeen benn collaboration ci ñu servatione aj bi wala mhm. itam wala jot ci am par rapport boobu jëlee ñi nekk Gambie Guinée Mali dafa mel ni ñoom ñoo xamante ne yomb aj tuuti waaw yombaay ak bi waaw comme li nga wax subvention rek moo ko mën a moo ko mën a def dangay jël xaalis bi ñëw jëndal ujaaj bi da ngay jël xaalisam ñëw fayal ko mun naa fayal ko Arafat jëndal ko billet avion fayal ko hôtel Makka ak Médine kon li si des as moom mooy nekk yow boo sey service yow individuel bu amee lu turus muy sa wërsëg léegi-léegi nag nga pëtax waaw waaye liggéeyu jaamu yàlla la ndax si loolu la ñu tàggat lool la ñu tàggat fii sabilillah jiital liggéeyal ku jaay ji jiital liggéeyal ngir am ngërëmu borom bi li si des nag lu ñu fekk si wërsëg mu santee ko yàlla ndax ah, comme ni ma la ko waxee ah, jàppale ma lañ nekkoon waaw ci côté bi maanaam état voilà voilà voilà subvention bi mhm. foofu ñu tey ah, si sensible na trop ndax engagement bi moom Koudiagne moom boo ko nee lii. Mhm. waaw bu si tokk dañee rek am nga problème. gis mhm. ñu daj de barki démb. Mhm. bu ñu nee vingt trois heures. car yi tardé ñëw rek. boo si subventionné aussi na nekk loo xam ne ne attan nañ ko. dañ ko édi. xam ne buñ si duggee rek doo dootul dañ day nekk loo xam ne day fay sax. te dégg naa tamit ñuy jël ay. Euh, mesures yoo xam ne premier ministre jotoon na ko wax. yooyu tamit na si tey te mu dellu si gannaaw. si wàllu sarifa yi amoon yaata ak yooyu noonu nañ si tey ba gëstuwaat ko ba pare mbir moom kilifa bu demee bay wax si mbir nag war na ko gëstu ba xam bu baax li si nekk ndax ah, aj bi du affaire de yaata ah, wala leneen expérience bi ngi si ak jub ak jubal bi ñuy woote ñoom noonu waaw bi nga xam ne ne mi ngi jub di jubal ñu xam ko muy liggéey depuis vingt ans wala plus ñu gis na mosul am benn problème nañ ko renouveler confiance jàppale ko ñu xool nu ñu leen mën a subventionné xool nuñ leen mën a woyofalee si biir avion yi biir avion yi bu woyofee rek gis des ñoom ñu ñëw fii négocier yenn détails yi si màkk rek aj bi day wàcc loolu rek moo yor waaj bi dañu wàññi biir avion bi ñëw négocier en tant que réew ak réew si li nga xam ne mooy dëkkuwaay yi fii ak prix yi ñuy defal fii ak taxes yi ñuy imposer fii rek boobaa subvention bi day daal di incha allah. macha allah. waaw kazaalika yàlla ñu am. mbégte ak kontaante di def ak yenn reportage bu njëkk di ñaan yàlla saxal ànd bi ba nga xam ne aj yi di ñëw ak umra yëpp ndax ñu ngi yëngu si umra chaque weer wala ñaari weer ñu indi programme ñu ngi ñaan yàlla tamit saxal ànd bi ba saa bu ñu ñëw rek ñu ñëw def reportage bi muy yàlla directement si tele bi ñu ñaan yàlla yëkkati ko yàlla defal leen euh, lu kawe seen jot si liggéey bi incha allah